Sall dafa war a def attention ndaw ñi ndax jamono ji mer nañu ba mara détaillé te nag lenn lu nekk mën a yaakaar yi ñi nga xam ne ñooy takk dari ñoo koy réglé loolee réglé wuñu ko ndax lu garaaw mën naa am ci réew mi moom Barthélémy Dias dan nay wax ne lii nga xam ne moo xew ci mbiri usman Sonko ab complot la boo xam ne bu leera a leer la bu ñu war a jël nag teg ko ci suufa te nag képp koo xam ne yaa ngi fi nekk di jéem a puus Macky Sall ngir ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat maanaam yaa ngi juum te yaa ngi koy juum loo te Macky Sall jamono ji maanaam moo war a dellu si war xelama xam na Sénégal ñoo ko bokk dañu ko war a waxtaane ndax li nga xam ne moo am ci réew mi di ak jaay doole loole dafa ëpp yéen a kaay sa ñu xëy fekk fa Seydina Issa Lay Thiaw daat nay wax ni ñi nga xam ne ñuy acteur politique yi dañoo war a def jàmm di wax jàmm yéen a kaay gi de la ñu xëy fekk fa Cheikh Maye Niass moom nag nee na d'accord la ci ñi nga xam ne ay acteur politique lañu di woote ci lu jëm ci wàllum résistance moom Cheikh Maye Niass daat nay wax ne amul kenn koo xam ne mën naa imposer xalaatam ñëpp daat nay wax ne Sénégal am na lépp ngir suqali ko waaye débat yi fi nekk ci réew mi amul benn njariñ moo bëri yéen kaay gi de l'Observateur nee na Sitor Ndour jël nañu ñu ko yóbbu nañu ko chambre criminelle ndax dañu ko tuumal lu jëm ci wàllum viol yéenekaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa maire ville bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara moom nag démb daat nay yëkkati ay kàddu nee na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp danañu jóg taxaw daal di tubayul Ousmane Sonko maanaam daal koy jàppale danañu résister jàmmarloo ak Macky Sall ndax li mu yore réew mi ak ni mu koy doxale dara jaadiwu ci Biram Souleye Diop mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Wi bokk ci Pastef daat nay wax ne Bassirou Gueye maanaam gàcce la ci administration bi Biram Souleye Diop nee na gëm xam na ne bi Bassirou Gueye defee déclaration ba pare maanaam sortem bi Macky Sall saaga na ko ba xolom sedd ndax ñoom jëfandikoo na mooy yëpp waaye nag ay cancre lañu seen bopp yu ndox nekku ci te nag na leen leer ne Ousmane Sonko du ñu ko bàyyi ñu koy sànk maanaam ñu ko jàppale danañu résister te duñu gën a gore moom Birame Souleye Diop daan nay wax ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi nee na Macky Sall lii nga xam ne moom lay doxalee maanaam jaaduwul te ñoom du ñu bàyyi benn yoon Ousmane Sonko ñu koy gàllankoor ci yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu woo askanu Sénégal ngir ñu jóg takku taxawa yéene kaay gi délibération libération nee lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba léegi pënd bi la ndax kii ñuy wax Moustapha Diédhiou sûreté urbaine da ko daal di teg loxo garde à vue la ko def la ko waral nee nañu Moustapha Diédhiou mi dafa def benn vidéo di ñaawlu ñi nga xam ne ay nafiq lañu ak ñi nga xam ne waa APR lañu te duñu ay julit maanaam ay faux musulman la leen bokk na ci tamit li tax ñu teg ko loxo nee na ñi nga xam ne ay julit pire lañu nañu jóg daal di xeex ngir nag injustice bi nga xam ne teg nañu ko Ousmane Sonko yéene kaay gi de la turbina xëy dañu xibaar naan ñu Figaro def na enquête bu doy waar ci terre ndax nee na teer mbàmbu la dëggantaan moo fa ama ndax ñaari directeur yi nga xam ne seen xam-xam sax demeewul noonu cinquante millions la ñu leen di fay ñoom ñaara weeru jota nee na teer bi sax li ñu si doon xara maanaam amu ci la sa amee ki giraawale ki njombe doy na waar na leen ko yàlla nëbb yéen kay gi di wal fajiri ñu xëy fekk fa capitaine Touré moom nag weddi na Serigne Bassirou Gueye nee na kàddu yu ñaaw yu doy waar yu garaaw yi ko Serigne Bassirou Gueye teg ci ndodam loolee demeewul noonu yéen kay gi ñu xëy fekk fa Pape Alé Niang journaliste bi moom nag nee na jamono ji ñu bari dañ koy wax naan ko Pape Alé toogal ci sa ndax ñi pare nañu ngir jël la dugalaat ci kasu bi pare nañu sax ngir rey la waaye nag moom Pape Alé Niang nee na est-ce que sax du daal di démissionné ci li nga xam ne mooy métier journalisme ndax nag nee na li ko waral jamono ji bu noppee lan lay dundalee ak njabootam ndax métier mi di journalisme loole la am bu demee ba mënut cee wax maanaam démissionné moo gën a gaaw moom Pape Alé Niang yéen a gi di source a xëy ñu xibaar naan ñu financement bi jëm ci Sénégal ci lu soxal wàllum souveraineté alimentaire xayma nañ ko ci neuf cent cinq milliards yéen gi di Les Échos Cheikh Cissé mi nga xam ne moo fi yëkkate woon ay kàddu